suis euh, présentement la coordinatrice de Luxe United Kingdom. donc euh, tey dama defoon vidéo bi pour parler un peu mouvement Diaspora Debout euh, di wax aussi liggéey bu rafet bi nga xam ne de la République def na ko ci askan bi notamment ci diaspora bi. voilà donc ñuy def vidéo pour remercier son excellence Macky Sall président de la République du Sénégal ci liggéey bu rafet bi nga xam ne jagleel na ko. Euh, Sénégal ci euh, Covid 19 bi donc euh, ak li nga xam ne ne jagleel nañu ko ñun waa diaspora donc di ko remercier bu baax a baax parce que gis nañ ne ne président bu mat njiit la parce que tey yëkkati na 12 milliards 5 jagleel ko diaspora fu waay mënti doon rek ñi nga xam ne ne tey wax dëgg yàlla am nañ ay problème ci mbas mi nga xam ne ne wàcc na ci biir réew mi parce que gis naa ne ku gëm diaspora la parce que tey. bëgg bi mu bëgg diaspora moo tax tey mu tuddee ñu quinzième région de la Séné du Sénégal loolu day woon rek ne nit ñu bàyyi xel parce que xam na ne immigré ñu euh, ñoo xam ne ne dañoo bokk ci économie Sénégal parce que kuy jagleel lu mat mille milliards par an di ko indi Sénégal di relever économie bi kooku dañ koo war a sargal tey wax dëgg yàlla def na la ko war mu doon président boo xam ne tamit dañ ko naw nekk jeune euh, am ambition am vision bu rafet ci euh, Sénégal Euh, loolu moo tax tey ñu jàppale ko gëm ko euh, mu nekk nag mouvement boo xam ne ne ça regroupe plusieurs pays de la diaspora ñu ngi euh, fépp ci àdduna donc c'est un mouvement né en juillet deux mille deux te tey ñu ngi Europe ñu ngi Amérique du Nord ñu ngi États-Unis ñu ngi Afrique ñu ngi Sénégal mu doon mouvement macha allah bu am doole boo xam ne ne coordinateur section coordinateur DSE ñoo ko regroupé. bu doon ñoo xam ne dañoo jóg rek pour jàppale ko pour liggéey bi nga xam ne ne entamé ko biir Sénégal ñu dimbale ko ci ba deux horizon deux trente cinq parce que mu doon président boo xam ne dafa am gis-gis am vision parce que ku ñëw na la je ferai du Sénégal la lumière de l'Afrique wax dëgg yàlla kooku da ko war a jàppale donc di ko gërëm di ko sant euh, di wax ne rek ne moom mention spéciale kenn amul lu mu koy wax parce que mi ngi def euh, wax dëgg yàlla liggéey bu rafet parce que yaakaar naa ne fépp fu waay nekk rek ñu lay bàyyi xel gis nañ li nga xam ne def na ko ci euh, Covid 19 bi euh, jéego yi nga xam ne jël na ko pour dimbali askan bi dimbali waa senegal parce que tey euh, yaakaar naa ne ni mu ñu dimbalee noonu la leen dimbalee parce que jël na ay wax dëgg yàlla ay vie di ko jagleel ay famille yi nga xam ne ne seen loxo dellu jotul ci gin dëgg ginnaawam donc lépp lu mu waroon def rek ñu ngi koy def. ñun nag euh, dañoo jox pour jàppale ko di ko wax rek ne ñu ngi fi woon démb ak barki démb ba suba moom la ñu jàppale moom la ñu gëm parce que dañoo gis ne ne dafa am ay vision te it euh, diaspora bu ay cuune nekk fa parce que dafa nekk dañoo nekk benn mouvement boo xam ne ne ça regroupe plusieurs tranches d'âge am na ay mag ci biir am na ay xale te it euh, xale ñëpp xam nañ ne jeunesse mooy ñi nga xam ne ne ñooy defari réew ëllëg donc tey di ko wax rek ne ne mention spéciale seulement nag euh, ñun diaspora debout dañoo nekk mouvement boo xam ne ne tey lu ñu gis ne ne lu ñu gis ne ne dañ euh, baax na ci Sénégal dañ koo war a wax te li nga xam ne tamit euh, metti nañu fa tuuti war nañoo ko mën a wax te di wax rek ne ne président ñun amuñu dara wax dëgg yàlla lu ñu koy reproché parce que li mu waroon yëpp def na ko gis nañ liggéey bu rafet bi nga xam ne ne def na ko biir Sénégal gis nañ réalisation yi nga xam ne ne ba mu toogee ba léegi mi ngi koy jagleel biir Sénégal prédécesseur am yi euh, li nga xam ne ne fa la fa la fa ñu bàyyi woon Sénégal ak fa mu ko yóbbu euh, waaye nag euh, ñu ngi gën a ñaaxaat président de la république mu bàyyi xel diaspora bu baax a baax a baax ba pare ñi nga xam ne ne teg na leen fii pour ñu représenter diaspora ñooñu la ñu bëgg tamit di gën a jokkanteel parce que yaakaar naa ne ñooñu ñooy passerelle entre président ak ñun parce que président mënul nekk fépp nekk fépp suñu borom rekk ko mën. ba tax na dafa am ñoo xam ne daf leen jagleel pour tey ñu jiite ñu ci biir diaspora te ñun nag war nañu mën a am loo xam ne ne war nañ ko tiisoo ak suñu président mooy suñu kilifa mais nag euh, accès boobu la ñu amul ba tax na ne euh, wax dëgg yàlla ñun ñu ngi bàyyi suñu waar parce que bi ñu ñëwee woon Sénégal au mois de janvier on a fait plusieurs passages euh, ci ay télévision lu ci mel ne 2STV DTV tous les deux mois wax dëgg yàlla ñu ngi doon dem ci benn dëkk seet ñi nga xam ne ne ñoom ñoo nekk des frustrés de la ci ci ci euh, diaspora bi notamment ci APR indi leen wan leen ne ne ñun président moo ñu ñor te moom mooy président qu'il donc di def réunion tous les deux mois dem nañ France dem nañ Suède euh, ñëw nañ Angleterre mais malheureusement dafa coïncider ak euh, Covid 19 bi ba tax tey mënuñu def benn déplacement mais dañoo bëgg gën a bàyyi bëgg. rek mu bàyyi xel diaspora parce que diaspora tamit sonn nañu wax dëgg yàlla am na ñi ñi nga xam ne ñu ngi fi nekk en situation euh, irrégulière euh, te ñoom tey euh, wax dëgg yàlla dañoo am yaakaar ci ci président de la république ba tax nag ne ne war nañu a jàppale faciliter leen le retour ba nga xam ne tey dinañ am loo xam ne ne war nañ koo mën a def seen réew bu mën a dellu. donc di ñaan yàlla aussi Covid 19 bi nga xam ne ne mbas la wàcc ci àdduna bi yëpp yàlla jëlee ko fi mu gën a gaawee. parce que tey euh, dina dina tax euh, économie dëkk yi gën a wàcc te gis nañ ne macha allah président de la république il était la bonne parce que tey euh, fa mu jëlee Sénégal ak fa mu nekk tey gis nañ ko mu nekk loo xam ne mi ngi koy def ci bourse familiale yeeg yeneen yeneen réalisation yi arena Ila Touba macha allah man saa yu ñu damay dem sa Touba mais. Euh, en même temps record yaa ngi Touba te loolu du ko ko gën a lee rek xam nañ ne état continuité la mais wax dëgg yàlla mi ngi bay waaram. donc nag euh, di gën a wax rek ne ne ñu ngi remercier aussi ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñu teewal ci Diaspora Debout ñu doon benn équipe boo xam ne équipe bu soudée la ñu nekk une famille comme ni ma koy waxee rek président de la République mënuñ ko gërëm di ko sant assez parce que tey tax na ñu am ay connaissances yoo xam ne dina du mën a dem ci àdduna. diaspora debout nag euh, ñu ngi ñu ngi ci jàpp bu baax di ci liggéey di ci bay seen waar ils sont là depuis toujours présents euh, di xool naka la mën a recruter ay nit ñu gën a ñëw jàppale euh, suñu président ba nga xam ne liggéey bi nga xam ne ne commencé na ko du koy eggali ba 2035 incha allahu rabbi di ñaanal ñëpp ñi nga xam ne ne ñu ngi Sénégal di ko ñaanal moom yàlla oyofal yan bi ci boppam mu eggalee. wax dëgg yàlla li mu entamé ci ak sagoom parce que ñëpp xam nañ ne euh, jiite dafa métti notamment réew mu mel ne Sénégal parce que les idées ne sont pas les euh, les gens ont des perceptions différentes euh, des choses et tout mais wax dëgg yàlla njabootee na ñëpp donc fii laa yemalee wax bi tey doon génn rek pour remercier le président de la République aussi ba pare di ko wax aussi mu gën a ñaaxaat ñi nga xam ne ne moom la teg fii ci àdduna bi ci ci réew mi pour ñu jàppale ko wan na ne ñooñu dañoo war a bàyyi xel euh, diaspora bu baax a baax ba tax na ne ñun suñu amee lu ñu war a wax dañ euh, ñu mën ko ko eggalil donc di ko ñaan aussi euh, mu jéem a xoolaat nu muy recevoir ñi nga xam ne ne ñooy dans la diaspora pour ñu mën a gën a waxtaan mën a saafante donc maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm tamit waa diaspora de bu ñëpp ñi nga xam ne ne ñoo ngi fi boobu ba léegi di bàyyi seen waar donc ku ci mel na ne euh, ñoom Tata Koumba Ba wax dëgg yàlla nekk euh, coordinatrice euh, vice coordinatrice fële ci Paris chargée des femmes ñoom Daaru Mbu Benelux ñoom Babacar depuis Mali ñoom Ibrahima Diaw ñoom Ndiogu Samb depuis Argentine ñoom ku Kulim Dioum donc man la woon seen mbokk seen xarit seen rakk Euh, Suzanne Ndiaye euh, présidente diaspora debout maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp euh, jërëjëf wasalaam. waaw man la Ibrahima Diaw bu diaspora debout bu Paris maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk seen tur ak seen sant di ñaan sama vidéo bi fekk ñëpp si jàmm ko waa di wax moo di moom boo leen bëggee jàppale da leen di jàppale ci ci ay documents administratifs loolu la ñu gën a soxla. donc que euh, wala ci dimbal leen si leen quoi comme que diaspora bi mooy cinquième mooy quinzième région du Sénégal donc vraiment moo di daal war nañu am représentant boo xam ne dinañ ci gis seen bopp quoi wax dëgg yàlla ñoom ku nekk euh, boo xëyee yaa ngi daw lu am yóbbu sa njaboot boole ko ak euh, politique bi aussi di jàppale président vraiment war nañu gën a gëstuwaat. Modou Modou je pense que nii Modou yi li ci ëpp boo waxee dañ ne la ah, ministère des affaires rek moo fi am parce que kooku c'est un représentant diplomatique entre pays donc gisuñu seen bopp daal ci ci koo xam ni dina fi nekkal euh, les immigrés quoi vraiment donc euh, fi nekkal immigrés yi dafa war a wàcc ci base bi di wax nit ñi quoi donc Modou yi xam ni ko am nañu un représentant vraiment donc. di wax ni waa diaspora dëgg ñoom gàcce ngaalaama ñu ngi ci ginnaaw président ak seen coordonnatrice di madame Suzanne Ndiaye donc vraiment li leen war yëpp ñu ci quoi donc panel la boo xam ni panel lu buy jàppale président de la république son excellence Macky Sall ci yan bi ko yàlla yan donc ñuy ñaan yan bi yàlla na oyof donc président nag mënul nekk fu fu nekk mu nekk fa donc confiance la am nommé ay ministre am ay. Euh, ay PCA ay directeur de société ay consul ñëpp vraiment donc nit ñi war nañ ko gën a mën a jàppale parce que mi ngi def liggéey bu am solo Sénégal ak ci àdduna bi yëpp quoi li mooy waxtaan mooy euh, ñun ñoo ci des donc euh, nañ ko gën a accompagner te ñun ay militants de première heure lañu donc gën ko jàppale rek pour mu am ndam lu réy réy di wax tamit aussi ñun waa diaspora dëgg ñu ngi wax liggéey ñu ngi def liggéey bu am solo te bëgg nañ bu mbas mi yëpp jeexee rek boo lépp ñëwaat au normal président de la république ñu ngi lay ñaan nga recevoir ñu toog ak ñun donc li ñuy wax yëpp amul parce que diaspora dëggu panel la boo xam ne daf fi nekk le président de la république. asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ci nekk turam ak santam maa ngi tudd Gnilane Guèye nekk fii ci diwaanu Mauritanie euh, daal di fiy teewal nag ñi nga xamante ne mooy euh, mouvement bi nga xamante ne mooy diaspora debout. Euh, tey nag dama ñëwoon di wax ak yéen ci Covid 19 bi ci aide diaspora bi nga xamante ne moom la président Macky Sall wàcce woon parce que ci àddina bi yëpp fépp foo xamante ne doomi réewam mu nga fa man ma féetee fii nga xamante ne mooy ci diwaanu Mauritanie donc du ñu def lu dul di ko jaajëfal bu baax di ko gërëm di ko sant ko nga xamante ne mooy suñu président de la République euh, di Macky Sall ñu ngi koy jaajëfal bu baax ndax li mu def yombul c'est la première fois président bu nii daal di fàttali ko ay doomu réewam ay doomu réewam nekk ci Sénégal mu daal di leen fàttaleku euh, yónnee leen ay ndimbal euh, lu mu tuuti tuuti lu mu bëri bëri ñu ngi ko ci sant di ko ci gërëm xam ne lii du lu ndaw euh, di gërëm tamit aussi suñu ambassadeur bi nga xamante ne mooy Moustapha Ndour nekk fii ci douane Mauritanie daal di def liggéey bu am solo fii ci douane Mauritanie waa ambassade yëpp ñu équipe bi yëpp ñu ngi leen di gërëm vraiment ndaxte def nañ liggéey bu am solo rang amu fa jaxasoo amu fa lépp loo xamante ne daf daf ñu mën a jural lu ñu mën a jox ci jàngoro bi nga xamante ne mooy Covid 19 amul foofu ca ambassade ba. Euh, sa xaalis boo ko waree jot dañ la woo téléphone euh, ñu yónnee la ko ba fa nga nekk wala ñu woola la nga daal di ñëw jaxasoo amu fa dara amu fa te ñu ngi liggéey liggéey bu jub vraiment ndax man mii bokkoon naa ci ñi nga xamante ne ñu ngi inscrire sénégalais yi di dimbale sénégalais yi pour ñu mënoon a bindu te am na ñoo xamante ne kat woo nañ ma téléphone ne ma ah diw ñu de jot nañu suñu xaalis euh, vraiment kontaan nañu trop ci président Macky Sall kon du ñu def rek lu dul jaajëfal suñu président bu baax a baax a baax a baax a baax di jaajëfal képp koo xamante ne yaa ngi woon ci ci ci ndimbal bi di ndimba dimbale sénégalais yi euh, di dim euh, di gërëm tamit président de sénégalais di Assane Gueye di gërëm tamit suñu coordinateur APR euh, Mauritanie bi euh, di monsieur Pape Ndir Gueye jàpp na ci bu baax a baax a baax moom tamit ndaxte mooy yi ñu doon liggéeyee yëpp ñun waa APR yi ñoo ñu ko génne euh, jox ñu ko ñuy dimbale sénégalais yi fii ndaxte boo seetloo fii ci tuwaanu Mauritanie ñu ci bëri xamul ni ñuy duggee ci euh, ci ci internet bi ba mën a bindu ba mën a dugg ci plateforme boobu euh, ba mën a am ci aide bi donc dañu leen dañ daf ñu ci jàppale suñu coordinateur boobu jox ñu ay ordinateur jox ñu ay téléphone euh, jox ñu ay crédit ñu mën di dimbale nit ñi fu waay mën a nekk ak fu waay mën a féete di la dimbale donc ñu ngi gërëm ñëpp ñëpp ñëpp képp koo xamante ne jàppoon nga ci liggéey bi suñu équipe bi yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant di félicité nag képp koo xamante ne yaa ngi liggéey ambassade ndax seen liggéey am na solo trop trop trop euh, ñu ngi gis rek benn vidéo boo xamante ne ci benn réew la euh, gis nañ seen consulat bi rang bi ni mu mel jaxasoo bi ni mu mel loolu nag amul fii ci suñu dëkk donc duñu def rek lu dul di ci féliciter suñu waa ambassade ndaxte ñoom ñoo liggéey liggéey bu am solo bi donc ñun waa Mauritanie duñu def rek lu dul di gërëm président Macky Sall di ko sant euh, di ko wax masion spéciale président Macky Sall daal ca kaw ca kanam yal na fanam gudd ñaanal bu a baax a baax Sall Ngaari Bourou Guédé. Eh, ñu ngi leen di nuyu di leen ziar eh, je me présente Cheikh Ndiaye coordinateur de la l'APR de Verona Italie membre de la l'APR Diaspora Debout eh, bala may commence sama vidéo da ngeen may may ma nuyu d'abord notre présidente madame Suzanne Ndiaye qui nous a permis de nous exprimer à traverse ces vidéos. wax ni donc man je membre de l'APR de Verona Italie dont je suis le coordinateur comme ni ma ko ma waxoon ci commencement bi et militant de premier heure depuis 2009 maa ngi ci parti bi karo bi ma jëlee engagement avec son excellence le président Macky Sall c'était en 2009 ma ñëw man ak moom rek ak yàlla ñu toog ci bureau mu recevoir ma jël engagement jàppale ko jàppale boobu nag ba léegi dañu ma ci. depuis 2012 jusqu'à nos jours ici à Verona jamais jamais je n'ai jamais perdu des élections élection bu ñëw rek gagné naa ko avec ou sans kon nag yaakaar naa ni man li ma waroon def sama dégg président def naa ko ñu nag président boo gisee ñu jël vidéo bi envoyé la ko à travers APR Diaspora Debout ay nit ñoo ci nekk ñoo xamante ni si dañu découragé woon frustré wu ñu ci bari fii dañoo frustré découragé ndax di liggéeyal nit ay at ndax boo xoolee deux 2009 ba 2020 ngay nekk ak nit di liggéey ak nit kon nag jaadu na nit ki xam reconnaître li nga koy liggéeyal mooy lan. jaar nañ ci kanaal bu nekk nag pour rencontrer la man mi personnellement fu ne ci Europe fekk naa la fa mais c'est dommage que mosoo ma recevoir léeg-léeg recevoir bi ñuy toog gisee rek gisee bu gàtt mosuñu toog mën a exprimer wu. kon nag yaakaar naa monsieur le président il est temps ñu mën a am benn toog bu ñu toog yow wax ak yow wax li ñu xalaat ci Sénégal d'ailleurs ñun lañu gëmoon mooy depuis mille 2012 bi nga jëlee réew mi ba tey 2020 ñun gis nañ fi nga jëlee réew mi ak fi nga ko jëmee avec de nombreuses réalisations yoo xamante ni si durant sept ans yi nga ko def man franchement je me je n'y m'attendais pas ndax weer dina gis bokk ci. ndax ku gis xam ne Sénégal fa nga ko jëlee 2000 ak fa nga ko jële sori na trop di la sant aussi di la remercier ci mesures yi nga jël ci Covid 19 bi def nga ci vraiment loo xamante ni si ba def ci loo xam si waroo koon def mais quand ñu ngi la ciy sant di ci gis nañ ñu ngi ci taxawoo ñëpp ni nga taxawoo aussi waa diaspora bi ni nga taxawoo waa Sénégal am na solo trop kon ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla na la la ci yàlla defal ndam yaag say collaborateurs yi nga àndal yëpp. mais nañ ne bu ñu sañoon monsieur le président dañuy toog ak yow wax la li nga xam moom la xalaat ci APR wax la li nga xam ne ñoom la ñu xalaat ci Sénégal ndax APR kat yàgg nañ ci lool ndax ba muy juddu ñu ngi toog fekke fu ne nag ñu ànd fa yow combattre kon nag ba dara doonul dara lañ nekk APR ba tey dara doon dara kon nag yaakaar na on a notre mot à kon nag bu ñu sañoon lool monsieur le président nga may ñu ko. tey structure bi tey di APR diaspora debout ma di leen sant di gërëm ndax nit ñu am fois yu am engagement ay nit ay nit de valeur ñoo ci nekk ñoo xam ne say koo ci waxal ñi ngi ak xam-xam am expérience te saa su ne ñuy développé di génn ay idées yoo xam ne mais c'est dommage tey video yooyu ak yi ñuy génn xalaat yi mënoo cee jot amaana sax boo ci waree jot ña nga ña la ca war a tax nga war ca jot duñu ñu ko jàllale ma xam ni ñun ñu am engagement ñu la bëgg ñoo xam ni ñëpp dañoo demoon ba frustré wu. mais avec encore avec euh, travail bu ci notre présidente madame Suzanne Diaye def ak ñeneen ay collaborateurs am ñu fexe ba jàpp dajale nit ñu bari kon nag président il est temps na nga gëstu say militants de première heure ñun nag loolu lañ lay ñaan ndax kan ñun partie bi APR dañ koo gëm te duñu ñu a dellu ginnaaw engagement bi ñu leen démb ak bërki démb tey ci dañ ci mas a ginnaaw kon nag ñu ngi lay ñaan. à travers ces président nga fexe ba ñu toog yow ñu wax la li ñu xalaat ci Sénégal wax la li ñu xalaat ci APR waaw ak li nga xam ci li ñu xalaat ci diaspora bi kon nag ñu ngi lay sant te di la gërëm te di la xamante ni si ñi ngi sa ginnaaw tey ak suba nañu jëloon engagement duñ ci dellu ginnaaw mukk ndax ñun Sénégal moo ñu yor d'abord balaa dara xew te ku gis Sénégal fii mu toll nga xam ne def nga ci lu bari te li nga yéene sax moo ëpp li nga def man xam naa loolu li nga yéene moom te peuple te président buy déglu peuple nga peuple am nga ndax tey boo jàppee ba peuple bi wax rek nga waat loolu nag ku nite moo koy def kon nag loolu ñu ngi la ci sant di la nag lii ñu ngi la koy ñaan président ah nit kat boo koy liggéeyal lu war a mat 11 ans ci ren 2009 ba 2020 tey ñii nga xam ne ñu ngi ci APR diaspora debout ay militants de premier heure yu engagé. kon nag ils la le mot à dire kon nag gestul ñi nga xamante ne si ñoo la nekkaloon ci naaj bi démb bërki démb ba dara doonul dara tey ba dara doon dara kon nag ñun am nañ ci suñu participation ndax tey bu fekkoon mobiliser wuñ suñuy nit voté ba ñu am ay résultats yu baax kon nag yaakaar naa kon tey dara du mën a xew ba ngay toog kon nag comme yàlla def na lii kon nag président gestul ses militants première heure te xam ni def nañ ci liggéey bu am solo. kon nag ñun foofu la ñuy yemale suñu kàddu xañ na bëggoon nañu développer mais yàlla bu dogalee ñu toog ak yow li ñu xalaat yépp incha allah ci kàttan yàlla dinañ ko def bala may tëj vidéo bi nag ñu ngi lay sant te di la remercier te di la gërëm di la xamal ni la ñun di la xamal ni la ñun ñu ngi ci yow suba ak ginnaaw suba li may tëjee nag mooy di remercier notre présidente Suzanne Ndiaye di ko jaarale remerciement ci moom ak ñépp ñi nga xam si ñooy membre APR Diaspora Debout tey suma ma limee damay juum képp koo xamante ni si membre nga APR Diaspora Debout ñu ngi lay nuyu maa ngi nuyu bi di nuyu waa APR Diaspora Debout la présidente Suzanne Ndiaye di nuyu tous les de Diaspora Debout man la Ba vice-présidente diaspora Debout suppléant honorable député département Dagana responsable APR aussi fii ci Paris maa ngi leen di nuyu di nuyu waa Sénégal ñëpp di ñëw nag ci président Macky sàll di ko sant di ko gërëm gis nañu liggéeyam ci Covid 19 bi gis nañu taxawaayam bi mu taxaw taxawal Sénégal rek pour dimbali Sénégal pour jàppale Sénégal gis nañu daaro alimentaire yi mu def pour dimbali population bi gis nañu aussi milliards yi mu desine ci diaspora bi di ci kontaan bu baax a baax di rafetlu nag liggéeyam di gis taxawaayam bu baax a baax dina kontaan ci moom ndax facture courant bu ñëwoon Sénégal rek feyal na population bi yëpp ay facture pour ñu kontaan pour ñu bañ a sonn ndax moom moom luy doxal Sénégal rek ci lay dox ak loo xam ni day dimbali Sénégal ci lay dox kon nag ñun ñi nga xam ni militant APR lañu pure et diir ba ñu jógee ba mu jógee lañ jóg ba léegi kontaan nañ ci moom ak sénégalais lamdaan yi nga xam ni bëgg nañu Sénégal yëpp ñu ngi rafetlu liggéeyam ndax bi mu fi nekkee bi ba léegi dara yokkuwu fi wàññi na yëpp a wàññi na ratio yëpp wàññi na ko kon ñëpp a satisfaire ci liggéeyam di wax aussi coronavirus bi nga xam ni moo lëmbee réew mi tiital àdduna bi yal na ko yàlla teggi rafet lañu liggéeyu soo excellence président Macky Sall moom ak gouvernement am et ministère de la santé et de l'action sociale Ablaye Diouf Sarr ñu ngi koy sant di ko gërëm di sant aussi ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye gis nañu taxawaayam gis nañu taxawaay Sénégal tam corps diplomate bi gis nañu seen taxawaay polise yeeg sàndarma yeeg ak médecin yépp gis nañu seen taxawaay di ci kontaan bu baax a baax di wax nag son excellence président Macky Sall ñun ñi nga xam ni ñoo fi nekk amuñu ay post te fi nekkoon ba ja ba commencé bi léegi ñun tam bëgg nañ mu bañ ñu fàtte ndax ñun fàtte ko ñu ngi ànd ak moom guddi ñu ngi ànd ak moom bëccëg di ko jàppale di ko compagnie ci deuxième mandat di ko defaan ci réseaux sociaux yëpp di ko defaan am na ñoo xam ne ay PCA yu fi nekk ak ay directeur yoo xam ni dañ koy wax lu nekk mais kenn du ko defaan loolu moom lu ma jaaxal la ak ministre yi nga xam ni dañ leen nommé jox leen seen post jox leen seen teraanga ñooñu war nañu bu ñu critiquer suñu président war nañ leen defaan mais gisuñu dara mais nag ñun suñu président ñu ngi rafetlu liggéeyam li mu def ci Sénégal ndax am na bourse familiale dañuy toog ba trois mois ñu fayeeku gis nañu carte mutuelle santé bi tam bi muy dimbali nit ñi jàpp ci loolu président de la république nous one est satisfait ñu ngi kontaan ci yow bu baax a baax mais sauf ñun ñi nga xam ne ñun tam ñu ngi fi nekk say militants di la jàppale guddeeg bëccëg di la defaan ci réseaux sociaux yi ñun tam wax dëgg yàlla war nga ñu fàttaliku kon nag maa ngi nuyu waa diaspora debout tout di sant aussi madame la présidente Sissane Ndiaye di sant tous les militants APR et les ñun fi mu nekk nii taluñu wax taluñu xuloo taluñu xeex dañu tal janoo euh, coronavirus ndax def ñu déclarer ger kon il faut ñu janoog moom xeex ak moom ñun ñi nga xam ni nag ñun sénégalais lamdaan yi ñu ngi kontaan ci liggéeyu président Macky ak soxnaam Marème fay Sall ak tous les membres de gouvernement ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci wetam buñ koy critiquer ñu koy defaan moom mu ngi kontaan mu ngi continuer rek di def liggéeyam gestuwul mu ngi dox doxam rek kon nag ñun militaires yi ñu ngi ciy kontaan bu baax a baax di wax merci tout et tous. Euh, salaamaaleykum diaspora debout ñu ngi leen di nuyu di leen ziar kii seen frère la Mansour Ndiaye depuis RD Congo euh, responsable de la jeunesse des républiques démocratiques du Congo donc euh, di militer ci APR donc. Euh, bokk aussi si diaspora debout donc euh, tey jii euh, ñu ngi nuyu suñu sœur suñu doom baay Suzanne Ndiaye di nuyu waa diaspora debout yëpp di wax ne tey rek dañu ñëw rek ngir waxtaan ak askan wi waaye avant tout di gërëm président Macky Sall ci liggéey bi nga xamante ne mi ngi koy liggéey ci Sénégal. surtout bàyyi xel gi nga xamante ne bàyyi na ko xel diaspora bi muy lu am solo diaspora bu nag bokk na ci panel yi nga xamante ne ñoom la ñuy gën a suivre euh, ci at ci diaspora bi du ma ne moo ci gën waaye bokk na ci ci gën bokk na ci nga xamante ne si ay responsable ay jeunes ay responsable ay mag ñoo fa nekk yu xam seeni responsabilité mais li ñuy wax nag ñu koy teg ci xam-xam li ñuy wax ñu koy teg ci ngëm-ngëm parce que dafa am solo ngay wax li ngay wax nga gëm ko waaye dafa am solo aussi nga xam li ngay wax je pense que ñun dañoo ànd ak président Macky Sall gëm ko gëm programme am waaye nag du ñu empêché bu ñu gisee loo xamante ne doxul ñu ne doxul loolu moom président Macky Sall xam naa nangul nañu ko nangul nañu ko bu ñu gisee lu dox ñu tàcc ko ñaari loxo ñaari tànk waaye bu ñu gisee lu doxul nag ñu ne ko président li doxul surtout maa nag président moom gàcce ngaalaama liggéey na waaye am na ay àndandoom ay responsable ci biir diaspora bi ay responsable ci Sénégal yoo xamante ne des fois. xawma ma manque de compétent lay doon xaw ma lan lay doon mais des fois dañuy def yoo xamante ne ni ñu ko bëggee ñun waa APR du demee noonu parce que ñun dañoo bëgg lu ñuy def mu jàkk lu def muy lu baax donc moo tax ci diaspora debout ñu wuteeg yeneen jas yeneen panel yi parce que diaspora debout dafa nekk panel boo xamante ne kenn ku nekk da nga am liberté pour wax sa xalaat wax sa ngëm-ngëm waaye nag ci respect ak ci yar ak teggin Zouzane sama doom baay mën na indi idéem man d'accordu ma ci ma ne ko doom baay man d'accordu ma sa idée man nii laa gisee waaye bu ñu paree ñu xam ne am na luñ ci tënk te nag Diaspora Debout bokk na ci panel yi nga xamante ne président Macky Sall da leen di déglu bokk ñi nga xamante ne ay idéem dañ koy jël. moo tax kenn sañu faa wax yenn wax yi moo tax def comprendre dañuy dem ba yóbbuñu ñu ne Diasporado bu ay dañuy gëmuñu APR fekk xàmmeewuñu militant bi nga xamante ne moom day toog rek luñ ne ko waaw buñ ne wow na mu ne kong buñ ne ko ñuul ne mu ne kukk buñ ne ko rouge mu ne waay ñuul xonq cooy la def non ñun doxuñu ci yooyu ay jeunes la ñu gëm suñu bopp gëm président Macky Sall gëm programme am waaye des fois aussi ñu nekk jeunes yu am xalaat des fois ñu président indi benn idéem moom ci boppam président indi xalaatam teg ko ñu ne ko ah ñu ne ñun de xalaatu président bi tey man nii laa ko gisee donc te yaakaar na àdduna noonu la war a doxee nit da nga war a am liberté si say xalaat. di gërëm nag soxna Josane Ndiaye suñ doom bàyyi wax dëgg yàlla taxawaayam ci diaspora debout ñëppee ko ko seedal seede bi benn la moo tax président Macky Sall yóbbante la recevoir al diaspora dëgg bokk na ci ñi nga diaspora bi bokk na ci ñi la gëm ci diaspora bi ñoo xamante ne dañ lay defendre défendre guddeeg bëccëg ci réseaux sociaux yi partout donc diaspora debout phénomène la boo xamante ne Zouzane Ndiaye récupéré na ñu bari ñoo xamante ne comprendre ñu woon président Macky Sall Zouzane Ndiaye xëcc leen indi leen ci Diaspora Debout si loolu lañu ñu comprendre kan mooy président xam nañu ne président yéene mooy lu baax rek des fois nag nga jël nit am ci moom confiance mu trahir la des fois mu jël nit teg ko ci benn poste fekk amul compétent bi nit la day tànn ki mu am yaakaar teg ko. njuumte yi nag ci diaspora bi bari na trop diaspora war nañoo xoolaat suñu bopp diaspora ci APR dara doxul actuellement nit ñi nag dañuy toog ci réseaux sociaux yi di wax li leen neex rek parce que parti mënuñu wax ne parti day dañ koy animer rek ci temps wu campagne non non non nit ñi danga leen di yëg tey suba doog a ñëw moo tax diaspora dëgg da ciy liggéey lu am solo te. diaspora debout defaraat na diaspora bi visage su diaspora bi ci ci président Macky Sall demoon na bay nit ñi di commencer décourager mais diaspora debout delloosi waat na leen donc ñuy sant Zouzane Ndiaye ak ñi mu àndal ci liggéey bi parce que nit du moom kese la mais moo nekk ci bopp bi mais ñeneen ñi mu ci àndal ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ko wax ne. diaspora debout fi mu teg tànkam foofu la ñun nag ñi ngi ci biir parce que ñun président rek moo ñu ñor président liggéey liggéey lu ñu keneen Aliou Ndao fan la nekk Aliou Ndao Fall moom lañu dégg diaspora bi ci APR doxul Aliou Ndao doxul kenn dégg ko te nit mënoo maa jiite di ma waxal te man duma xam xamoo xamoo man li ma bëgg noo may waxale suñu député diaspora yi anañu nañu dellu seen base yi déglu askan wi yóbbul président muy Sarr yaakaar lañ amoon ci yow bi ngay doog ñëw mais fi nga teg sa tànk xoolaat ko. yaakaar lañ amoon ci yow bi ngay ñëw mais fi nga teg sa tànk xoolaat ko moytul ñu dugal la ci ndëgg sërëx bi nga xamante ne Sidi Sidiki Kaba si la nekkoon déglul waa diaspora bi maa ngi sant ñëpp di gërëm yëpp di sant waa diaspora dëggu yëpp sama frère yi ci nekk yëpp mënuma lim Abdou Karim lay gisee ñu ngi ziar gaa yëpp doom ba Cheikh Ndiaye ñu ngi lay ziar Grand Diaw ñu ngi leen di ziar yéen ñëpp di wax ne diaspora debout sa kaw ca kanam gars yi jàpp leen. Euh, salaamaaleykum euh, àdduna wërgal képp donc euh, man la waat Suzanne Ndiaye présidente diaspora debout coordinatrice APR au à l'ex United Kingdom. donc vidéo bi ma doon def rek mooy vidéo de conclusion pour wax rek ne ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ ci liggéeyu diaspora debout bi nga xam. juillet 2019 ba léegi mu doon presque dix mois. ñu nekk sur le terrain di dem ci dëkk yi di réunir hiver bi ak suñu ay propre moyens di dem ci hôtel yi di seet euh, njabootu président Macky Sall yi nga xam ne dañoo tasaaroo pour ñu indiwaat leen ñu liggéey nekk benn donc euh, ñi nga xam ne ñoo wax du ñoom rek ñooy ma jàmm membre diaspora debout c'est quelques-uns par parmi plus de trois cents membre donc di wax rek ne président de la république ah fu mu nekk nii tàllal nañ la suñu loxo parce que yaakaar naa ne ni ko sama naataangooy waxee mooy dëgg booba léegi ñu ngi